xol na sa yaram bi mais dara jotu la ay xalaat rek ñoo nekk ci sa bop bi so démé da ngay jema a bañ xalaat bu bari bi waaw bon ta nga jema lek bu baax soko défé rek di nga wër inshallah non mais docteur looy wax ni bay li ngay wax tabaski ni di ñew amna ñetti soxna am fukki dom ku nekk di ma laaj te dara amaguma ko dimbali ma ngir yalla nga entré ma ba julli gi jall docteur looy wax ni dama la ko ñaan rek li lay soli ngir yalla